asalaamaaleykum sëriñ bi sëriñ Mouhamadul Mountakha Bachir Mbacké xalifatu kullu murid maa ngi yëkkati ay kàddu nuyoo yoo xam ne sama xol laa ko tibbee ak i kàddu ziyaara ak i kàddu di la ndokkeel ci bés bu mag bi ñu dëgmal di bésu ngeenel ci diine l'islam di bésu yaakaar itam ci julit yépp muy màggalu Tuuba ginnaaw bu ma la nuyoo ak délégation bi ànd ak man ma wëlbatiku joxaat la suñuy nuyoo ak suñuy ziara jëm ci njabootu xadimu rasul gep gi tok ci sa ginaaw nga jottalil ñu nuyo bobu ak ziyara bobu ma ñewat bi ci dila sargalat si ajjuma bële ñu genn mu doon ubite juma masalikul jinan ubute go xamne jangat nañ si yaatali xéwal ak jàmm akub déggoo jëm ci diine lislaam bi yépp rawatina ci këru diine lislaam yépp yi nga dajale keroog ci ci naan waaye nekk na it yaatal xéwal ak yaatal jàmm akub déggoo ci mbooleem diggante ñi nga xam ne it ñoo seq

si gouvernement bi taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw ci sa wet ba lépp lu yitteel dëkk bi rawatina li jëm ci wàllu màggal gi ñu mën ci taxaw niñ ci war a taxawee la cay jiitu nag mooy wàllu ndox ak assainissement ndax bu ñu amee seetlu waxtu wi déwén bu ñu fi yàlla bàyyee màggal gi ak déwén jéeg ci biir nawet lay tombe loolu nag dafa waaj dafa dafa laaj ñu am waajal ba bëgg naa bu ñu génnee ci màggal gi ñu saytuwaat mbiru ndoxu Touba ak réseau yi fi nekk ba xool dëgg-dëgg ak tolluwaayu dëkk bi lan mooy solution yi gën a yaatu te nekk luy gën a méngoo ak bëgg-bëggu dëkk bi waaye ak yitte askan wi nekk fii ci Touba ginnaaw loolu it mbirum courant dafay nekk lu soxal dëkk bi ndax yaatuwaay bi ak tolluwaay bi loolu it gouvernement bi ak Senelec ak ñépp ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ci wàll woowu daañ ci taxaw taxawaay yu war ba lépp mën a yomb ah ginnaaw loolu sëriñ bi ma ngi ñëwaat bi ma si suba dem na visiter complexe ci Ahmadou Bamba Xadimu Rasul complexe bi nga tambali liggéey bi weer yi ñu génn di la wax ne de wax dëgg yàlla gis nañu fa liggéey bu rafet gis nañ fa it liggéey bu kéemaane liggéey bu ama am solo ci tolluwaayu bâtiment yi ak tolluwaayu daara gu mag googule waaye li ma ji gën a yéem mooy loo xam ne ay weer rekk ci ginnaaw nga ko tàmbali waaye tey ba ñu fa demee fekk nañ fa ay bâtiment yu bare bare yu R plus ñetti étage ñeenti étage yu taxaw ba pare muy wone pas-pas ñu ngi dënk liggéey bi ak pas-pasu taalibe yi nga xam ne ñoom it wuyu nañ la ci liggéey boobu ñu ci si li nag bu baax a baax ndax daara jooju xam ne ne lu sëriñ bi bindoon la bàyyi fi kon nag su nga liggéey bu ama am solo boo xam ne ñëpp war nañ ci taxaw ñëpp war nañ ci jàpp ndax yow yaa ubbi liggéey bi yaa wane it jëfit li tax liggéey bi mel noonu ba tax na gis naa bi ñu ma présenté daara ji ne ginnaaw jàngale diine gi nga xam ne moo tax mu jóg boole nga ci ab métier yoo xam ne ay métier ñu fa mën a jàngal ñenn ci ndongo yi wàllu woowee nag ñun mën nañ ci taxawit sunu wàll ndax dama am yéene ci ñeent fukki département ak juróom yi ci biir Sénégal benn bu ne ma taxawal fa daara métier boo xam ne dinañ tagat xalé yi jàngale ni métier ba nga xam buñu fa génné wutub xey dana len yomb lool kon ci sa ndigal mën nañu ci walu dara liggéey kay ñu andi tam loolu mu nekk euh suñu taxaway ndax mom lañu fasiyene def ngir yombal gu gone kon sëriñ bi ñew bi tay dafay wareef si ñun ñu ñoo tam andil la ziyaara ak ndokkale Sénégal yëpp ndax màggal gi nekkatul rekk mbiru yoon wi nekkatul rek mbiru lislaamu Sénégal waaye dafa nekk lu wër àdduna bi yëpp kon ñu ngi lay ndokkale di ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool te ànd ak wér te lépp loo sumb suñu borom taxaw la ba nga mottali ko te am nañ si yaakaar ñu ne lépp lu si sunu wareef incha allah daañ ci taxaw ci sa wet ngir indi itam naa li nga xam ne mooy suñu wàll ci liggéey bi nga sumb dinañ ko dinañ si jàpp bu baax a baax maa ngi sant bu baax te la gërëm ndax xam sa yéene ci liggéey bi ma yàlla dénk xamit say ñaan ak sa jàppale kon yal na yàlla yàggal loolu yàlla sàmm Sénégal suturaal Sénégal ba ñu yàgg tam di ñëw di leen fi fekk allahumma salli ala sayyidina di wa sallam